bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a am zikrulaahi mooy yoon bi gën a yaatu ci yoon yi nga xam ne gaa yi yàlla yi ci la ñuy jaarale seeni taalibe xam ngeen ni sëriñ taalibe yi ñëw ci moom ay mbooloo yu bokkuli jàngoro lañuy ñuy doon day am ñu ñëw ci ñoom ñoo xam ne sampal nañ leen gétt ci safara te safara rek la waroon a jëm moom sëriñ bi mooy sempi gént ba gétt ba ca safara dugal leen àjjana ñooñu àjjana rek mooy seen yemuwaay ak ñoo xam ne yàlla bindoon na leen ci àjjana ba noppi waaye ñu ngi ci yoonu réer faw nag bala ñoo dee daañu gindi ko ci waaye waaye yàlla leen di gindi yàlla baaxe leen ñu dajeeg sëriñ bu matuk sëriñ mu jaar leen ca yoon wa ñii yàlla jubal na leen bind na waaye barke amuñu ko barke aduna wala barke alakhir barke aduna moy ñu la top di la liggéeyal jaar ci sa ndigal te duñ la moy mukk am warma ëmb warma ci sa xol seen xol ëmbal la ca warma ba tek la place boo xam ne yow sax nekku la fa wala ba nga fa nekkee it ëmb ni mënuñu ko misaal wala barke alakhir mooy yomal qiyam nga taxaw ne ku fete sama wetu ndeyjoor ramu naa la nga nga jëm aljana ku nekk sama wetu chamoy ramu la nga jëm aljana ku nekk sama gannaaw wala nga nekk sama kanam wala kuma gis texe nga kon taalib yi jëm ci sëriñ borom bi daraja yu wute lañu ñu rawante lañu ñi nga xam dañ leen a jaaral ci zikrullahi mooy ñu jëm ci yàlla dëgg ñi jëm ci yàlla ñi ci gën a bari néew ma ñëpp dañ leen def loo zikr a zikru lan la bu ñu seetee Mawahibul Quddus sëriñ bi fi muy misaale ci karkat wax na ko ci masaalik waaye ci Mawaahibul Quddus la ci gën a soree wax na ba ne la da ngay sikkar di sikkar di sikkar di ba maanaam sikkar si baat bi ngay wax jaxasoog sa yàpp ak sa deret nga gis kéemaan yu day waar nga gis kéemaan yàlla sikkar wax koo xamee ne tàmbali nga sikkar yaa ngi mel ne ku sóob dugub di wal kuur gu dal rek am na pepp yu mu mokkal kuur gu dal rek am na pepp yu mokk ya dal day toj naka noonu baatu dikkar bi laa ilaha illa allah wala yaa karimu wala yaa latif wala yaa jalilu wala yaa azizu wala yaa xayu yaa qayumu ak beneen bu mu doon bu la sëriñ bi tànnal wala mu jox la ci ab junj danga ngaa amee kurus di xëcc wala da toog rek jublu penk ànd ak njàpp teewlu baat boo wax rek dal na ci sa xol di ko wulli mel ne der boobu ngay jóor di ko wulli booba muy nooy daan waxtaane sikkarkat jaarwaay yi muy jaar ba ba muy dem ba àgg foofu sëriñ bi wax nga xam ne jaxasoo naa deretam ak yàppam lépp zikrul mubtadi ina sikkaras way tàmbali ñi xam ngeen ne zikrul qalbi am na zikrul lisaani am na zikrul jawaarixi am na kuy sikkar ci lamiñam rek ay kuy sikkar ci xolam ak koo xam ne cëram yépp ay sikkar bu ci ne am na kii tàmbali nga xam ne zikru lisaani lay def tàmbali di tudd yàlla di teewlu sikkar si muy sikkar di ko dégg day tàmbalee lii day tàmbalee ci noppam ndax dégg gi mu koy dégg lii ci lamiñam ndax wax gi mu koy wax lii ci xolam ndax xam gi muy xam ma maanaa mi walla bu ko xamee bu ko xamul nit ni muy diisa fi moom ak ni muy xamee ne ci yàlla la nekk noonu mu koy yëgee dana yéex a gëndoo kooku mooy zikrul euh, mubtadiina dañuy sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba suñ nelawee di gënt di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba léeg-léeg duñu nelaw waaye dañuy dox mel na ñu koy sikkar dañuy sikkar di sikkar ba mu yàgg ñu mel ñuy dégg baat bi baatu sikkar bi te du ñoom ñoo koy wax ñu dégg mel ni te tolloo ñoom di sikkar ñu di ko dégg kooku mooy zikkarub mubtadi one yi soog a tàmbali zikkar zikkarul muqarrabina xam ngeen al muqarrabuna yi mooy ñi gën a jege suñu borom tabaraka wa ak siddiqoona yi sax euh, agguñu ci ñoom siddiqoona yi ci aarifoona yi lañu ñu bokk waaye du ñoom rek ñoom ak muqarraboon yëpp ci aarifoona yi la ñu bokk daan waxtaane seen mbir insha allah léegi ma muqarrabuna yoy manam la ñi nga xam dañu sikara sikara sikara sikara ni señ bi xé bika bi la ilaha illa allah wal muntahi muhtasirun billah bi ngay tambalé fofu nga xamne aaju wootoo wax la ilaha illa allah da nga allah rek allah jo wax sa cër yep ben toqin gar bi ci sa yaram karaw bu ci sax day sikar and ak yow da ngay dem ba so noppé sa cër yooyu yëpp di sikkar sa xol bi di sikkar sa deret ji di sikkar sa yax yi di sikkar sa karaw yi sax ci sa yaram di sikkar loolu lañ dikkarul xal bi sikkar sa xol bu nu waxagun sikkar si nag ni muy def ni mu lay def yow ak fi mu lay jële ak fi ngay jaar ak étape yi mu lay jaarale dañu ciy jëm ndax ci aynul jam'i lu ñu tuddee aynul jam'i daanu ko misaal fala la sikkar di wommat bunt ba ñu ubbi mu dugal la fa wàññi ko nag bàyyi laa ak sa bopp dangay ngay toll foo xam ne waxtu woo tàmbalee sikkar ñu génn la ci daairatu xissika dootoo yëg dara boo xoolatee doo gis dara doo xamante da ngaa xippi wala da ngay xool sa nopp yi dootu dégg dara looy dégg yàlla ngay dégg looy gis yàlla ngay gis looy yëg yàlla ngay yëg boo làmbee daj ko loolu nan la nan la demee day nekk loo xam ne yow dong dong dong koy yëg da ngay dem ba foo xam ne bu adduna bépp daje woon di tëgg ay sabar di yooxu di fetal di def na gën a xumb moo kenn bañ a nekk ci adduna ñoo yem ci yow képp ndax yàlla fu dugg daj ko fees fa dell da lapp ci biir géej tawxid ba nga xam ne sa lépp tawxid lay doon foofu mooy mujjug bay zikkar ci la ñuy delluwaat boo tàmbalee sikkar ci ndog yi la jëm boo defee tajarrut maanaam rafle nga ci lépp bàyyi nga lépp léegi nee nga yàlla nga bëgg bëggatoo lenn lu dul yàlla seytaane ngemb fu mu lay njëkk a tàmbalee àdduna la lay indil teg yaa ngi ñàkk jóguloo liggéey liggéey bi mu ci jublu boo ci duggee ne liggéey rek du dox du dox mukk sa digg yàlla du yàq mukk si kar daf koo mën a yokk daan wax na mu koy yokkee waaye dafa bëgg boo si jógee nga mën a jaxasoog nit ñi boo jaxasoog nit ñi mu fexe ba sa xol yem ci li ngay def ci liggéey bi rek muy du la gën a jege loo xam ne day dox sa digganteeg la nga doon yootu te jote boobu ne am na foofu boo fa àggee loo mën a def jaxasoog nit ñi même jaxasoog yéefar yi sax du la wàññi dara waaye sori na ñu seet ne kon boo xamee ne indil na la àddina Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu nee na fa inna li dunia humuman tamnau min alhuda wa hiya la tanqatiu الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة أدنى أمن يتي شي نك يو خامن دو جيخ موك تا داي دوخ ديغنت نيت ak jub تا دو جيخ موك تا داي داي بيتي te bari na bu dee ñëwee fekk boroomi itte yu bari am boroomi naal yu bari yu mu fasoon yéene àggale dee ne ko ket ket dox digganteem ak loola le nga xam ne kon yow mi nga xam ne yaa ngi sikkar bu la adduna njëkkee jublu ni ko sëñ bi waxee rek daf lay njëkk a won gannaaw nga ñàkk mu dugal ci taxol ne da nga torax dugal ci taxol lépp nga dëggoo mu wëlbatiku nag indi la wërsëg yu bari nit ñi fonk la di la teg fu nekk loolu lépp boo geesoo jëm ca rek ab jabar ngay doon da nga mën di def di dindi waaye ak njabar lay doon boo amee sëriñ moo lay làq moo lay xettali boo ko amul ñu seet fekkente ne yàlla def na nga ko am chance ànd ak malaayika yërmande yu lay jege mu dàq leen wala nga taxaw ak alxuraan ak salaatu ala nabi ba tey yooyu ay gànnaay lañ yoo xam ne dañuy ba ma seytaane waaye nag combat bu rëy rëy rëy nekk foofu bu fekkee nit ko amul sëriñ la ndax dañu wax lëndëm gi nga xam ne mooy dog jaamukati yàlla yi buñ demee bay bëgg a jub ba jaar ci yoon wa dëgg ba jubal suñu borom dafa am lëndëm gu leen di feeñu koo xam ne lëndëm du dara lu dul lu wuuteeg lu jëm ci yàlla maanaam daf lay wañar bi jëmee ci feneen maanaam jëmee ci àdduna mooy jox la barke jox la man-man jox la am am te du dara lu ab jëy soo geesoo jëm ci rek yàqule fekkee ne nag danga am sëriñ sëriñ moom sëriñ bi mat sëriñ dafa am ñaari wet am na wet goo xam ne dafa jublu ci yàlla ba faw moom sëriñ bi wet googu du raf mukk du wëlbatiku du geesu ci yàlla naan jàkk rek ni nga xam ne noonu laa jàkkaarloog mikro bi may waxee bu ba waxtu boo xamee ne seytaane jëm na ci yow leer mooy seqi ko ci wat googu nga xam ne wetuk sëriñ bi jógee ci yàlla ba ne caw sa digganteeg seytaane ay yar la koy caw wala mu amee ay jum di ko lakk ak safara mu daw ndax anamu sëriñ bi wet googu jubloo gi suñu borom tabaraka wa taala day janloog jamaalu rububiyati maanaam rafetaayu pays rububiya suñu borom tabaraka wa taala wala jalaal rubu rububiya jamaalu rububiya bu fekkee jalaalu rububiya la day lakk mooy jum bi nga xam ne mooy lakk seytaane mooy lakk yu bon yi taalibe bi bu fekkee ne taalibe bi sax na dëgg dëgg ci xolam xolam xole na ci xolu sëriñ bi ci cofeel fekkee ne jamaalu rububiya la dajanteeg anamuk sëriñ bi di ko yër leer lay doon koo xam ne day gand seytaane bu ko xeeñee rek mu daal di daw mu daal di lakk wala mu dee wala mu daw ñun dañ waxee ne zikrul ilaahi mooy xóotul xal bi tudd yàlla moo xam alquran la la xasida la wala tur way sikkar la mooy dundal xol mooy añam ak reeram moo di lekkam day set day day fóot xol ba mu set ni ko misaale mooy yor mu yow yow mu yor sëmiñ ci ngarab gu mag di dóor rek waxtu ñu sëmiñ bi dalee am na lu dagg bu ko noonu waxtu wa sikkaree ka teewlu ko am na tomb bu ñuul bu mu far ci sa xol soo ko dëkkee dangay dem ba sa xol set gecc boobaa ndax leer yàlla du dugg mukk ci xol bu salte xol boo xam ne kañaan a ngi ci wala rëy wala bëgg adduna wala bëgg daraja wala bëgg lekk wala bëgg tayeel leeru yàlla ci dugg waxtu waxawee nag zikrullahi bi sikkar si na ba loolu bi set leer yàlla kàmbale dugg dugg googee muy dugg ni ko sëñ Tuubaa ci Mawaahibul Quddus radiyallahu taala anhu nga di sikkar di sikkar di ba nga xam ne jaxasoo naa sa yàpp ak sa deret dina da nga kéemaan goo xam ne ko foog borom dana la ko won fikru itam non la demee fikru la xamé yalla da ngay xalaat di wéet di xalaat ba lo gis gis ci yalla wéet di xalaat ke wéet di xalaat ba lo gis gis ci màggug yalla ak xerañam ak ak kàttanam di sikkar di sikkar ba xobu garab bi nga mën koo xool xam secret yi nga xam ne moo nekk ci sa kanam ba ba ngay dee ngay sikkar di sikkar bi sikkar ba nga xam ne mën ngaa gëmm jànloog malaayika yi jànloog ruuxi yonent yi fi jógewoon jànloog arasa kursi yu mën nga sikkar di sikkar bay jàng lawxul mahfuus nga xam li nga xam ne mooy xew ëllëg mën nga sikkar di sikkar ba jànloog nit daje nit xam aji texe la wala aji texe di la xam ku dese lu bari ci àdduna ci dundam la wala ku desewul lu bari alquran tagg na ñaar yooyu yëpp ci alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaq bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am